lan moo tax nga fekk fekk ja feebar yëpp tëdd nga ta nga tàmm ci ki nga xamante ni mooy Siteu Siteu moom du wér day tane rek. Mm. muy muy muy muy Kara Dollé. ah Kara Dollé moo ma taamu de. Kara Dollé moo ma taamu. Kara nee yow yaa jël avance bi. man man maa jël avance bi bu mu kii bu mu xama man bëggu bëggu bi yeggaguñu si bëggu ma wax. combat bi combat bi combat bi instant bi xam nga ñii ñu ngi naan làmb est-ce que dina am. maa ngi dégg ñenn ñi ñenn ñi ñoo ngi naan est-ce que nekkul li mu doon wax ak ama neex moo tax nga ñëw taxaw bëgg a tëj gémmiñam si nag lépp a ngi si nag loolu bokk na si li ma gën a métti quoi parce que nit ku nekk fii ku nekku si bu gudd bi yaa ngi si bu gàttu bi maandu moo gën julleeg woor gis nga ama neex ni mu mel man meluma ko am a neex ni mu mel meluñu ko xam nga mais am na loo xam ne maandu moo gën julleeg woor mais du kaara da mais moom digganteem ak ama neex la déedéet bu dee diggante ak ama neex ama neex garaawam la tey mën na ko woo téléphone xam nga wax ak moom xam nga ne ko grand kat lii nga lii la la la am na loo xam ne man duma ko def am na loo xam ne moom du ko def am na loo xam ne ama neex du ko def mais bu sentiree lii la def lii lay def xam nga mais nit ñi nag ku nekk mais ñun bu ñu amee lu ñu métti sax dañuy préféré woola wax ak yow mais du cadre média bi nag léegi dafa bari site internet yi bari ba ku lu waay jóg di wax loo xam ne sa yoon nekku si wala kii mais ab Baay de ku koy ñoddi wala ku koy dund maandu ak moo gën julli ak woor Baay warul di dugg lu yoonam nekk warul di lu ñëw rek waxate muy wax. ba dañoo yaakaar ne jaamu yàlla julleeg woor la mais maandu ci la. non maandu si maandu mooy pay. <laughs> maandu du julli nit mën nay julli ku dégg bëccëg subaa ngoon wallaahi al azim ku julliwul am na chrétien yoo xam ne dinañ romb ay jullit dugg àjjana te julliti duñ dugg. wallaahi al laa la wax. te dara mayu leen ko lu dul seen maandu ak si ak ak maanaam gëm waa gëm seen diine dugguñu si lu seen yoon nekkul mais sénégalais bi léegi. chaque jour ñi ngi si média bi di wax nit lu luñ war ta wax sénégalais yi chaque jour ñi ngi toog fii nii ku romb ñu la diw mee ne diw loolu. léegi daal su ma déggee wax ji daal mooy dangaa jug pour corriger Kara doole bu ko yàlla defee incha allah. mais est-ce que dina yomb. noo du yomb combat bi moom ku ne moom du yomb ku ne day yomb mi ngi nax boppam moom bu jàppee ni combat bi day yomb si moom mi ngi nax boppam man bu ma jàppee ni day yomb man maa ngi nax sam bopp en tout cas lu mu laaj parce que combat bi bokk na si combat boo xam ni. combat bu baax ci man la. combat de xam naa ko tey lépp lu ma ñàkkoon ci ginnaaw man gëm naa ni bu ma daanee Kara Dollé dina ma fa yóbbu te incha allah ci barke borom Touba mi ma yaakaar àdduna ak àllaaxira incha allah maa ngi ñaan yàlla may ma ndam lu kawe. sama njor mais dama dégg ne combat bi xawoon na am ay ay ay linki-linki parce que taxawal bi xawoon na metti tuuti mais après bi ngeen xawee déggoo bi ngeen xasee waxtaan combat bi yomb na parce que dafa am loo xamante ne da ngeen ko bokkoon ku ci nekk di ñor di damal njëkk a wax ak moom damal njëkk wax ak moom lan moo nekk ci diggante bi waa li nekk ci diggante bi lenn la rek yàlla dafa dogal gis nga ba may ànd ak moom ba ñuy dajee màggalu kañ la woon booy màggaluk daaru 2014 maag sama kii ñoo ànd 2014 ñu dem màggaluk daaru de Cheikh Modou Karawa ngi toog suñu kanam nii borom daaru gis ñu ñëw téye suñu ñaari loxo xam nga bi mu téyee ñaari loxo yi ñëw après moom muy mu ni maam pour pourtant kii de ñu ngi moom si boppam. xam nga rek moom kaa doole xam nga moom day wax. après mu ni maam kii de pourtant xoolal bërki démb rek ñu ngi ñuy wax suñu combat maak moom dañu war a bëree mais du ma bëree ak moom maam bi ne kon le bu dee lool la bu leen làmb boole boobu ba léegi. wax nañ ma fi ay combat mais xa kiiwuma sax parce que xalaatu ma ni kàddu boobu mu waxoon moom kàddu boobu mu waxoon pour man du ko wàcc. mais moom nee na wàccul kàddu bi de yow yaa ah. njëkk a nangu mais mais lan mooy wàccul combat bi promoteur bi bu fenulee bu wax bu waxee dëgg te yàlla tax parce que nit ku nekk xam nga booy dee sa bàmmeel xam nga mais moom dama ne ko avant bi ma woowee ne ma Kara Dollé fekk boobu wax na moom mi ngeeg sama man jël na avance mu ni ma Kara Dollé ma ne ko Kara Dollé gëw ma dina bëre ak man mhm. mu ni ma ndax lan ma ne ko woo ko nga laaj ko parce que moom dañ daje woon expliqué la comme li ma expliqué lii nii ne ko dañ daje woon foofu noonu mu ni du bëre ak man mu ni ma loolu daal yow boo paree pare na boo paree moom pare na ma ne ko waxalak ak moom après si la si la ko kiiwaat dans ay trente minutes xaw ma une heure de temps woo ma ne ma Kara nee na pare na ma ne ko amul problème amul problème nii la demee mais amul lenn nag ñun ñoo bokk ku tedd ki bu dul dara ñoo bokk du baama Bamba Xaadimu Rasuul xam nga aussi tamit ñun ñoo mën a mayante xaalis xam nga làmb ji ñun bu ñu demee ba lébu yeeg lébu yi lebu yi yoof ak lébu yi tëngee ji bëre xam nga kon làmb mooy loolu waaw mais daal man aw ma lu may teggi wax nag parce que moom moo waxoon moom moo waxi waaw leneen nag li ñuy wax nag mi ngi suñu kanam mais am na yoo xam ne bëgguma sax xuus. mais lan moo tax nga jël combat parce que da nga gis waaw nga suqalikuwaat il faut nga xool foo xamante ne mën nga faa jaar jàpp nga ni combat bi dina dina dina dina am xeex wala dina métti wala dina yomb. waa moom dama koy sant di ko gërëm rek. parce que moom bu ma neexee bu ko neexoon tey ne du donte man li ma def si làmb defu ko de. mais ah, man ci làmb. waaw mais man ñi ma daan Kara Dollé kan la daan. Kara Dollé. kooku hmm. ngeen adversaire de moom moo daan mobile. mobile la ko daan man maa daan mobile ak kan kan la daanaat. ah. bëri na ak ñaar yaar te suma juum dama fàtte combat bi nu mu demee. waaw yow gis nga xamoo sax xaaral demal nga laaj ko loolu ba pare boo ko laajee mu wax la kan la daan wala lu mu kii après nga mais man benn ma ni ñi ma daan moom daanu leen. ñi ma daan moom daanu leen man ñi ma waxal man ñi ma kiiwal ci làmb jaarut ak ñoom noonu man leer na ma xëy na na Kara bu du woon média bi ak presse beeg yooyu kenn du ko xam ak ku tedd ki mu tuddee boppam xam nga. mooy loolu xam nga Cheikh Modou Kara. moo déggee daal li nga wax moom deful li nga def ci làmb def ko ci làmb. moo gaw ko de man karaa xaw ma sax ñu mu daan man mënuma la wax. wa billaay moo nga jël ko. waaw li ma li tax ma jël ko dama ko jël pour bëgg a mën a dellu parce que tey moom bari na coow làmbam day bari wax. xam nga <laughs> dafa bari coow. day wax rek dëkk bi koo wax instant mu ni taw dama bëgg adversaire yu mel noonu bu may bëree ñu ni xam xam nga mbër yi ma daan sax bi may bëree ñoom si man lañ amee buzz. mais nee na combat bi du ci wax. du ci wax. ah waaw. parce que nee yow jawloo ko muy wax ci combat ah waaw kon alhamdulilah. comme du si wax kon yàlla na maintien loo ah loolu moom du si mën a waxagum sax mais kooku mënoo ko tere wax de gan gi day wax rek de. <laughs> baal alwaxaa la <laughs> eh, eh kooku waxuma sax kooku moom kooku gars yi day wax rek ba pare du indi du gaz du yàpp du jën billaay mais day wax rek. baat bu ñëwee du def dara. ah xaw ma dina def dara xaw ma du def dara daal mais moom daal moom man jox naa ko cër respecté naa ko. ngir ku tedd ki nag moo tax bëgguma ko wax dara loo xam ne naka su dul noonu la